ma Leewtoo <laughs> ak mbokk internet yu Wassare Lamb ñu ngi nuyu baax a baax di leen ziar tey nag gis ngeen fii mi ngeen ko xam ngeen ko yàgg ngeen koy gis waaye nag. yéen mbokk internet bi ba léegi dugg leen fii tey naan parce que fii mbëree ko moom mbëree ko moom waaye fii li fi nar a xew rendez-vous que tout le monde attendait le rendez-vous que tous les internautes ou bien les amateurs attendaient c'est le rendez-vous des chics c'est le rendez-vous des amateurs c'est le rendez-vous des lutteurs ce sera le 6 novembre 2022 fii si arène nationale si diggante kan kan Papa Sow aa ah, borom jàmbaar ak kan Siteu borom Lansar Siteu le phénomène Papa saw la phénomène ce sera le 6 novembre incha allah fii si de Dakar loo xam ne amateur yëpp ñoo koy xaar fu mu toll nii na stade bi yëpp nee na teg xool leen vert jaune rouge fi picc maanaam picc yi naaw la ngeen di seen ñiy coow. di coowoo waaye le 6 novembre incha allahu rabi dañuy gis loo xam ne naa leen benn picc du coow parce que dina leen dégg na ngeen di dégg supporteru Lansar yi na ngeen di dégg supporteru Papa Sow yi waa fas waa Médina <laughs> waa Guédiawaye waa Pikine waa Thiaroye ah waa Grand waa Parcelles waa Grand ak ñen sama xarit ah waa Jàmm gën <laughs> tey bii combat nee la waa Dakar yëpp fu toon ñu ngi koy xaar waaye Sénégal tamit ñëpp ñu koy xaar gis ngeen sondage yoo xam ne waa Wassare Lamb def nañ ko Thiès Dakar Saint-Louis Kébémer Ziguinchor dëkk yi l'Afrique de l'Ouest Mali Cameroun Nigéria Afrique du Sud Libéria Maroc Algérie Togo Sénégal Ghana Égypte Côte d'Ivoire Burkina Faso et des Congo Tunisie ba Zambie Sénégal yëpp fu mu toon yi war Afrique yëpp le 6 novembre incha allah la xaar l' expérience face à la jeunesse ci boobu komba qui sera le vainqueur de ce combat entre borom jàmbaar ak kii di Siteu borom Lansar boo nee Lansar sa xel dem si Nes waaye xam nga ni mos boo nee Papa Sow sa xel dem si xarañ loo gis ngeen contact bi ko rek moo xarañ loo ay waaye kagul ba kagul ba kagul ba ka borom kagul bi kam mooy yàlla mbin bi ko koy Siteu Siteu la. <laughs> loolu ngay dégg léegi waaye fu mu toll nii waa passé la naan Papa Sow rek en tout cas fu mu ni moom euh, fu mu toll nii nee naa leen fu mu toll nii Sénégal yëpp combat boobu lay xaar fooy leen na daje ñoom ñaar et saa fu mu toll nii man maay wax amateur yi ñooy wax supporters yi ñooy wax coach yi ñooy wax nee naa reporters yi ñooy wax anciens lutteurs yi ñoom ñoo ngi wax ñëpp a ngi wax waaye le 6 novembre 19 jot arbitre bi ne pipe. diggante Papa Sow ak Siteu foofu wax di fa am foofu la ma fay am jëf ma fay am mbokk internet yi Wassare Lamb rendez-vous à ne surtout ma à ne surtout pas